ni président des jeunes nekk ci commune bu Guinaw Rail Nord tey ñu gis mobilisation bu mag bi nga xamante ni def nga ko lan ngay wax ak ban yëg-yëg ngeen waaw yëg-yëg bi moom mënta weesu lu dul contentement ak mbégte bu rëy. parce que ku xam nekk ci au niveau national xam ne échéances yi nga xamante ni mooy euh, les élections du 23 bientôt temps yi yëpp suñu borom dogaloo ñu nekk li nga xamante ni ay RPI la rassemblement populaire d' information ñu def ko ci trois zones Manko Mango Mango gi ak Jokko. arrivé à un certain moment tey nekk le vin coïncidé ak li nga xamante moo nekk caravane de culture caravane de culture nag boo ko waxee contentement boobu bari nga parce que xool jeunesse bi xam ne ils ont fait une forte délégation une forte mobilisation mais les femmes aussi de suñu ginnaaw donc bu yàlla dogalee ñu am foule bi depuis 16 heures ou bien 17 heures jusqu'à présent ñu ànd ñun di dox yaakaar naa ne bëgg-bëgg la mais yaakaar naa contentement ak li nga xamante ni peut-être mooy jaral na leen ah, donc mbégte bi ak contentement bi yaatu na di ñaan yàlla aussi. Pape Diame deuxième mandat lu war a mën a nekk la. loolu lu ñuy c'est une réalité c'est une réalité parce que vous l'avez déjà vu dans le terrain nekk na loo xamante ne ni lu ñu gëm la te nekk nañ le soir du au soir du 23 janvier 2022 Pape Diame deuxième mandat 2 loolu ngay dégg incha allah bég nañ ci loolu jërëjëf.